assainissement mm-hmm. moom homme de terrain la bu ma ko waxee te mu ne ma nañ fa dem <laughs> xool ni mu dem bu ma ko waxee man ko nañ ànd parce que man aussi bëgg naa dem di gis mm-hmm. euh, ci ngay gën a mën a mm-hmm. euh, jëlee la mesure euh, de li ngay def monsieur le ministre dañ lay may nga souffle tuuti ñu ànd seetaan reportage bi nga xam ni moom la ñu Cheikh Kébé defaloon fële ci Malika ci band de filao yi ni nga xam ne nit ñi noonu lañ ko songee ba dindi ko ak jeexital yi mu mën a am ci environnement avec la complicité de la régie ñu suivre le reportage de euh, changement climatique. Je que c'est parce qu'il y a aussi une dégradation naka lañu ñu mën a def ba sàmm lu jëm ci wàllum alam gi di environnement liy doon ab laaj bu ñu samp ginnaaw yàqu-yàqu yi nga xamante ni gis nañu ko ci wàllum alam gi bu ñenn ñi jàppee ni lu jëm ci wàllum déforestation ñeneen ñi di wax wàllum changement climatique ak lu jëm ci wàllum érosion côtière te moonte ay jéego yu bari ñu ngi koy def di jëmbat ay garab ngir fexe ba dëgëral lu jëm ci wàllum alam gi waaye nag mu mel ni li ni mel nit ñu bari xamuñu njeexital yi nga xamante ni jëmbat garab mën na ko am. donc garab genre écran la. Mhm. boo xam ne ni aussi day protéger suuf si. Mhm. parce que boo gisee mbéy. Mhm. zone yi nga xam ne ni day am ay garab mhm. day protéger suuf si ba nga xam ne li ñuy wax érosion mhm. du ñëw yóbbu suuf si ci kaw yëpp mhm. te suuf si ci kaw foofu moo ëpp solo pour culture yi donc bu amul garab ngelaw li lépp lay yóbbu donc garab day jouer un rôle aussi dans l'agriculture la productivité agricole ci ci mbay mi li ko dooree Cambérène jaar Tivaouane Peulh ba fii ci Malika mu mel ni garabu filawo yi fi nekkoon lu ëpp ci ñoom dañu ko gor fas yéene ko def ay dëkkuwaay li askan wi nga xam ni ñoo fi yeewoo yàgg nañ ko ñaawlu waral ba ñun nag ñëw nañu fi nga xam ni mooy Malika nemmeeku jafe-jafe bi nga xam ni askan wi ñu ngi koy dund moonte li ko taxoon a jóg moom filaawo yi xeex lu jëm ci wàllum avancée de la mer bi ku xam Malika xam la zone de Niayes xam ne pourvoyeur la légume jur yi lañ doon déplacé sable bi di muur li nga xamante ni moom mooy culture maraîchère bi loolu doon li nga xamante ni bokk na tax li tax ñu defoon ko fi bi ñu ko fi def avant indépendance la vers les années quarante en même temps kër yu ndaw yi nekkoon ci wetu géej gi sable bi du ñu yee woon jamono hiver ba léegi nii sax da ngay gis ne fi tali bi suuf si daf koy muur benn côté bi kër yi fa nekkoon seen buntu kër yi wala seen peggu kër yi dañ daan ñëw fekk fi sable bu bëree bëri bëri dans ce cadre là moo taxoon ñu ne nañ fi def filao bi a du Fall di yowoo ci gox bi nekk coordonnateur bu mouvement Malika d'abord di ñëwaat ci juróom benn téeméeri hectares yi nga xam ni moo nekk fii ci Malika. mën naa ne plus de 600 hectares yi nga xamante wala mu ëpp ko vous voyez ndaxte doo xoolee fii dafa continuer jëm Lac Rose Tivaouane Peulh mais nga xamante ni moom moo nekk ci commune Malika rek lii 600 hectares ectare quelque la 600 hectares yi dañ ko naroon a jël dugg ko dëkkee. mu mel ni ca Malika nag géej gi am na ay jamono yoo xam ni nag day gën di avancé day dem sax ba indi ay yàqu-yàqu dem ba ci wàllum tali bi ak lépp loo xam ni da koo jege. tey du fekkee produit hiver nga fi ñëw fii nii lépp nga gis tali bi benn côté bi yëpp sable dune bi daf koy muur kon filaawo yi amoon na fi solo. doo xoolee infrastructure yi ñu fiy def du yàgg doo xoolee gis nga pont yi fi nekkoon deñ na. tey lii barrière yi nga xamante ne mooy def pour la route bari su bëri xomaat na garabu filao yi nga xam ni dagg nañ ko ca diwaanu Maliko def ko ay dëkkuwaay mu mel ni daanaka jafe-jafe rek la jural ñi nga xamante ni ñoo fay yewwoo daanaka am na beneen mbir boo xamante ni moo nekk ci ginnaaw mooy ab càcc goo xamante ni sax dañu ko fa nemmeeku gis nga situation bi nu mel dafa mel daf ko gas te bu ñu koy gas service technique état yi ñu ngi fi ñu jël ay plus de 1000 suuf jóge na fii tey dem. géej gi di gën di avancé di indi ak loraange ci askan wi taxoon ñu taxawal ay filao ngir xeex li ni mel waaye nag mu mel ni ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci askan wi ñoom seen yéene mooy dagg garab yooyu def ko ay dëkkuwaay lii nag waral ba njiitu réew mi jëloon ab dogal dakkal bépp liggéey boo xamante ni am na ci littoral bi waral ba fi nga xamante ni mooy ci diwaanu Malika. ab dogal la boo xamante ni askan wi daat nañ koy rafetlu. Cheikh. Mhm. Cheikh jërëjëf yaa ñu demaloon fële ci ci Malika. Mhm. Euh, gis nañ li nga xam ni moom la population yi wax. Mhm. ci nga xam ni moom mooy agression bi ñu def dans la di filao mais yow bi nga demee li nga constaté est-ce nañ ko dëkkee est-ce lu ñu tar la ba dindi fi filao yi di ko dëkkee wala mhm. waaw jërëjëf Momar maa ngi lay nuyu bu baax dina fay di nuyu également suñu invité bi nga xamante ni moom la am rawatina ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan à travers la 2STV ni ñu ko waxee noonu la ñoo ko gisandoo ci élément bi nga xamante ni moom la ñu def muy ca diwaanu euh, Malika Malika nag buñ ko waxee dafa am benn xar kanam boo xamante ni moom la am mooy lu jëm ci wàllum filao yi dafa doon loo xamante ni lu askan wi yàgg sàkku la parce que boo demee ci gox boobu dafa doon loo xamante ni mooy mandargal do gox bi ndax ba yàgg nañ cee def ay jéego ngir nag li nga xamante ni mooy filawoo yi maanaam ak naataange bu ci am mais da ci jamono yi ñu gis dafa mel ni dafa am ñoo xamante ni seenum yéene jamono yi mooy gor garab yooyu daal di koy def ay dëkkuwaay loolu nag am na ay collectif ak ay mbootaay yoo xamante ni taxaw nañu ngir xeex li ni mel waaye boobu ba léegi nag daanaka autorités yi daanaka dañ leen a jox nopp ni ku tëx ndax kenn dégluwu leen ci mbir mi léegi nag ñoom li nga xamante ni ab yóbbal la boo xamante ni dañu ko yàgg yëglu li ñu bëgg rek mooy kilifa yi nga xamante ni jamono ñoo nekk ci réew mi ñu daal di yëy yàbbe ci jafe-jafe bi nga xamante ni moo am mm. leneen li nga xamante ni mooy sa laaj bi xamante ni moom la ñu def au niveau de Malika ñoom li ñu wax li nga xamante ni moo am parce que boo xoolee géej gi ak tali bi daanaka soriwul te tali bi avant mu fay jaar amoon na ay filao yu bari yu fa nekkoon mais léegi foofu boo fa demee loolu yëpp léegi ay dëkk dëkkuwaay la ko def ay kër la ñu ko def maanaam ko voilà genn wàll gi yëpp tabax nañ ko mhm. ay borom yi barke la ñu wax ñoo fa ñëw kenn ku ci nekk daanaka am nga fa ab kër tabax nañ ko daanaka la ca des bariwul leneen li nga xamante ni moo fa des te moo dox ci diggante géej gi ak tali bi askan wa ñoom nag ñoo taxawoon opposé wu ak ñi nga xamante ni ñoo amoon yéene bëgg koo tabax donc kon jëwriñ ji mi ngi fi dina ci indi ay leeral loolu mhm. wax nga dëgg mhm. euh, mais ginnaaw aussi euh, Malika temps bi moo ñu permettre ñu wane lépp mhm. mais demaloon nga ñu aussi mbaaw mhm. mbaaw aussi am na benn phénomène bu bu ni mel mhm. daanaka buñ fa compter lan la voilà xam nga boo jamono yi boo waxee lu jëm ci wàllum alam gi sa xel day dem ci wàllum déforestation sa xel day dem ci wàllum changement climatique waaye aussi sa xel day dem ci wàllum érosion côtière érosion côtière nag bu ñu ko wax mooy li nga xamante ni mooy géej gi ni muy avancé parce que boo demee mbaaw dafa am ay kër yu bari yoo xamante ni daanaka dañoo jege woon géej gi foofu bi li ñu fa nemmeeku mooy dëkk ña fa ci kër yooyu yëpp dañoo mujj bàyyi seen i kër daal di dem dëkki feneen parce que géej gi mooy am ay tànki kanam amul tànki ginnaaw loolu na phénomène boo xamante ni ñoom nappkat ya fa dëkk ak ña ñu fa fekk lañ la ñu wax mooy ñoom amal nañ ab benn mur bu ñu fa tamaxoon mm-hmm. mur boobu nag moo doon contrer ndox mi loolu c'était depuis ci jamonoy Abdou Diouf la ñu wax ni moom la ñu tamaxoon mur boobu waaye mur boobu boo boo xoolee ci biir ndox mi da koo ëpp doole ba genn waa gi daanaka daanu na mm-hmm. beneen phénomène bi nga xamante ni am na ci mbir moomu mooy dafa am ay cimetière yu nekk mbaaw daanaka cimetière ndox mi da koo xaaj ci digg bi genn wàll gi ndox mi da koo jël ci li nga xamante ni moom la ñu jot a nettali dafa am sax ay yoo xamante ni dañ ko fa daan fekk ci ay affaires yu doy waar yoo xamante ni yëpp ndox mi moo ko daan génne ba ñoom def nañu seen kéemtalaay kàttan am nañ ay xeer yu ñu fa tegoon waaye daanaka doyul ay initiative sax jëloon nañ ko ngir teg ay ay pneu di contrer ndox mi waaye ndox mi moo amul tànki kanam tànki tànki ginnaaw tànki kanam rek la am. mu monsieur loolu tokk na ci nopp monsieur le ministre. Mm-hmm. Mm-hmm. gis naa ne sax tànk bi ngay wax mi ngi yëngal bopp. Mm-hmm. donc dossier yoo xam ni. sans doute ci ban jeex ñu lay gërëm. voilà leneen rek mooy li ñu bëggoon a dugal léegi. waaw mooy élément bi. nañ dugal benn élément. Mhm. ci Almadies 2. voilà waaw parce que foofu itam defe naa. voilà demoon nañ fa. demoon nañ fa waaw nañ dugal élément bi avec la complicité de la régie mooy li ñu doon wax sànq monsieur le ministre. ci mhm. Almadies yow mënoo am sa ndox yow non non ñoom seen ndox nan lay mën a jaaree si biir population léegi yow sa ndox nit ñi si dugg waaye APS bi ñii ñoo ko mag waaye yow dañ ko moom ci jugul ci teel lu ëpp fanweeri junni doomu aadama ñi dëkkee ci quartier Almadi 2 Almadi 2 péage Médinatoul Mounawara cité Sir Jaraaf 1 Jaraaf 2 ak cité 6 seeni kër dina soppaleku ay bassin de rétention bu ñu sukkandikoo ci délégué de quartier bu Almadies 2 bi di monsieur Lopez mi ñuy xamal ni mur bi Eiffage def seen diggante autoroute à péage moo indi gàllankoor yooyee. lu bees lu fi am loo xam ne amu fi woon waa Eiffage yi dañ ñëw clôturer clôture boo xam ne nii gis nañ ko kenn mënu koo laal kenn mënu koo bënn kenn mënu ko def dara waaw li tax nag ñuy cri mooy autoroute bi euh, clôture bi dafa ñoo endommagé. collecteur bi collecteur dañ koo ànd ak def lu leen neex parce que yemuñ ci emprise bi nga xam ne moom lañ leen tracé loon rek autoroute comme côté bi fii yëpp kenn tabaxu fi sa amul benn mel kër bu fi sës ñoom dañ ñëw rek yaatalaat loolu boole koog ñu clôture clôture boo xam ne nii béton armé lañ ko def boo xam ne kenn mënu koo bën kenn kenn amul fenn fu ndox mën a jaar gis ngeen ndox mi ni mel ta tawagut waaw maa ngi wax ne kii di fiy dund ci ay nit ëpp na quinze mille personnes. préfet bu Tëngéej bi nag tànkam la wu leen benn yoon ndax bi mu déggee seeni ñaxtu ñëw na ba ci foofee xool situation bi la. seen yoon voilà ce que je gère. moi je ne gère pas ay plan ay leneen ak leneen xam nga qu'est-ce que je des populations des quartiers yoo xam te ni commencé na taw dañuy inondé ngeen def mur mu baare ko vous me donnez une solution on passe à autre chose vous me donnez pas de solution on regarde ces différents points et on va ñu passer à autre chose maintenant vous vous gérez le contrat avec l'État entre autres mois je gère des populations et je vais rendre compte à l'autorité supérieure askan wi yeewoo Almadies naam déglu nañu li nga xam ni préfet bi wax na ko waaye teewul nit ñi ngi daas fanaanal Almadi de Cheikh. Mhm. rédaction bi ñu ko defal voilà lan ci mën a waaw dafa dañoo nekk ci contexte boo xamante ni ndox mi dafa bari. Almadi de zone boo xamante ni dafa am benn mur boo xamante ni waa Eiffage ñoo ko fa tamax te bu ñu koy tamax nag bàyyiwuñu xel ni foofu ay dëkkuwaay dañu fa nekk ndox mi buy ñëw du am du mën a dem fenn. léegi ndox mi day mujj obligé demaat ci kër yi nga xamante ni moom la ñu tabax foofu ñoom nag yàgg nañoo yëglu dem nañ ci kilifa gune daanaka kenn dégluwu leen gis nañu préfet moo wàcc ak li nga xamante ni mooy constat bi wax na wax ko sax ci biir waxam man askan wi laa fi nekkal mhm. léegi question bi nga xamante ni moom la ñëpp di laaj mooy comme que ñoom def nañu ay jéego lan la ñu tey jii la ñu mën a teg fexe ba jox jumtukaay bi nga xamante ni moo war euh, ba préfet daal di def liggéeyam bi nga xamante ni moom la sumu ci mbir mboobu jërëjëf Cheikh mais loolu premier ministre tontu na ci sànq mhm. parce que nee na dina ko wax. collègue am de l'hydraulique et de mm. l'assainissement mm-hmm. bu jaree ñu ànd ci terrain bi et le ministre du mm-hmm. transport bu jaree ñu ànd ci terrain bi sax ñu ànd ci terrain bi xool leen voilà parce que mm-hmm. situation bi ñii dañ ko dañoo bëgg solution ci am lool te nawet bi daanaka day doog a door rek te ñoom bëgg nañ ci benn solution boo xamante ni mooy tax ñu am benn féexaange effectivement en tout cas jërëjëf Cheikh euh, ci liggéey bi ci rédaction bi def euh, li ci monsieur le ministre wax leer na mais monsieur le ministre dañuy dellu si ci élément Cheikh bi Mhm. surtout fële ca Malika avec la bande de Filao mhm. ak fële ca Mbao mhm. de la mer waaw li ma waxoon sànq ci euh, élément euh, Almadies 2 bi rek laay waxaat parce que euh, nit souvent mooy responsable problème yi am ni problème d'environnement yu am rek c'est parce qu'il y la main de l'homme nit et wax naa ko léegi moo tax souvent ñu naan lépp looy def rek acte booy posé rek war nga xool bala nga ko def. njeexital yi mën a njeexital yi mën ci environnement bi ak ci société bi. et c' est la même chose pour bande de filao yi bande de filao yi 1948 lañ ko defar. ba ko kolon booba jëlaguñ indépendance bañ koy defar dafa amoon luñ ci jublu. liñ ci jublu woon mooy protéger. dëkkuwaay yi yi yi nekk en face de la mer. parce que wax naa la ne garab barrière la. li liñ ci jublu woon aussi mooy protéger les cuvettes maraicher parce que zone des Niayes bi xam nga dafa am ay cuvettes maraîchères foofu la ñuy defee parce que 70 euh, pour cent des produits horticoles du Sénégal foofu lay jóge ci Niayes. effectivement donc aar dëkkuwaay yi aar nit ñi lutter contre l'érosion aar cuvettes maraîchères yi moo nekkoon. cëslaay ba loolu moo taxoon ñoom ñu def ko mais malheureusement je crois que ñun dañu am problème ci politique d'urbanisation depuis 1960 boo demee ci yenn dëkk yi boo demoon tey Kuala pour en Malaisie même yenn dëkk africains yi sax da ngay gis des forêts en pleine ville da ngay dem ci biir dëkk bi nga gis forêt mmh. mais Dakar tout béton moo tax nit ñi naan la seen cap vert bi c'est devenu cap béton. léegi benn benn poumon vert rek fi am muy parc de Hann. bëreetul bu fi jóge woon musiba am. parc de Hann moo tax ñu wax ko fonk. parce que parc de Hann bu fi jóge woon musiba am. moo tax on a même un projet de vraiment restructurer le parc de Hann gën ko ñoŋal gën ko valoriser aussi donc nit moo indi jafe-jafe yi te booy def urbanisation da ngay sóoraale aussi l'environnement. mais malheureusement euh, daf ñu rattrapé dañoo tabax partout Dakar te ndox par exemple du wàcc yoonam. soit day infiltré wu dugg ci biir suuf si soit mu ruisselé bu fekkee ne yow da nga tabax lépp mu war a infiltré wu mënul infiltré wu bu waree ruisselé wu bu ruisselé wu amul ci fu mu war a dem foo xam ne tabaxuñ ko mais day taax. Mhm. te loolu mooy waral inondation yi. donc muy muy muy littoral bi muy euh, kii bi euh, Malika bi. Mhm. muy euh, Almadi 2 bi. muy mbaaw bi aussi lépp rek cëslaay ba boo ko xoolee ci nit la jóge mbaaw c'est vrai que changement climatique yi ñëpp koy dund à l'échelle mondiale. Mhm. du ñun rek mais ñun dañoo nekk un pays côtier Sénégal am na 718 kilomètres de côte mhm. te boo ko jëlee. de Saint-Louis à Cabrousse yëpp am problème d'érosion euh, boo jugee Saint-Louis boo ñëwee côté Kayar bu dee côté Dakar bi boo ñëwee mbaaw Rufisque wàcc sali boo wàccee les îles du Saloum boo demee ay Dionewar nga wàcc en Casamance dem ay Elinking wala les îles euh, de la Casamance les îles Caron ak île Carabane ak île yooyu érosion bi problème dëgg la parce que climat bi bu yokko euh, température yi bu yokkoo glaciers yi dañuy fondre glace yi dañuy seey glace yi bu ñuy seeyee niveau de la mer day augmenté te ni te euh, géej gi bu yokkoo day avancé bu avancé nag ñëpp ñi nga xam ne lépp li nga xam ne dafa nekk en dessous du niveau de la mer wala mu nekk au même niveau que la mer ndox mi daf koy envahir loolu moo waral érosion côtière te suñu côte yëpp moo ci nekk fi mu ne et priorité la pour gouvernement bi parce que. waaw parce que Sénégal yàgg na ci sax. def ay jéego parce que mbaaw boobu muy wax euh, am na euh, mur bu ñu fa construire woon mais boo xoolee jokkul euh, Saly Saly am na ay infrastructures yu fa état bi defoon moo tax sax beaucoup de dotel mën a récupérer seen plage mooy dig boobu voilà et aujourd'hui ministère bi dans le cadre du projet Waka projet boo xam ne Afrique de l'Ouest lépp la mais Sénégal am nañ projet commencé nañ sax d'ailleurs defar benn digue à gore parce que hmm. l'île de gore aussi est menacée. aussi et dañ fay defar benn digue boo xam ne ça va coûter neuf milliards d'ailleurs base vie bi commencé nañ ko installer au port. Hmm. pour mën a defar digue boobu. Hmm. mais ba tey jii nii des na yu bëri yuñ ñu war a def et priorité la pour gouvernement bi euh, gëstu yi études yi def nañ ko. parce que euh, stratégie nationale. de gestion des zones côtières defar nañ ko ba pare euh, ñu ngi ciy waxtaan ak les partenaires techniques et financiers. Mm-hmm. état Sénégal aussi dina ci def li mu war a def pour que ñu gën a xeex. njort nañ ni quand même seen gouvernement dinañ taxaw parce que yéen ngi waajal sax defe naa euh, teg observatoire national du littoral. waaw. loolu ab kuréel la boo xam ni. Mm-hmm. xëy na bu taxawee dina gën a mën a xeex lu jëm ci loolu. waaw euh, observatoire du littoral bi avant loolu sax. am na une loi d'orientation sur le littoral boo xam ne. Mhm. ministère de l'environnement moo ko porté yàgg na ko porté nag avant ñun ñuy ñëw. Mhm. mais en deux mille vingt trois deux vingt deux ou dem na ba table conseil des ministres mais cette loi n'a jamais été adoptée. ah bon ah oui oui parce que il euh, y avait beaucoup d'enjeux autour du littoral. Mhm. et ñun bi ñëwee on a relancé cette loi d'orientation du littoral. mais dafa coïncider. Euh, premier ministre créé ab commission boo xam ne nii mooy saytu occupation irrégulière yi ad hoc boobu voilà parce que dañ arrêté les travaux sur le littoral créé commission boo xam ne mooy saytu hmm. occupation yi sur le domaine public maritime bu ñu paree ci loolu ba am conclusion yi day tax ñu gën a dëgëral la loi sur le littoral soumettraat ko te incha allah xalaat naa ne dinañ ci am euh, ndam léegi nag observatoire bi hmm. Euh, avant observatoire national bi ñun bi ñuy créer sax am na observatoire régional. Ah, parce que déjà en 2011 UICN moo jàppale woon UEMOA. Hmm. pour ñu créer ab observatoire. parce que littoral bi du littoral Sénégal rek moo am ay jafe-jafe ah. Hmm. yi nekk ci littoral bi yëpp dañu am ay jafe-jafe. mooy observatoire régional sur le littoral Orloa te boobu centre de suivi écologique bi nga xam ne ministère de l'environnement et de la transition écologique la dépendre. moom moo koy piloté. léegi nag dañuy créer dans le cadre du projet WACA aussi benn observatoire boo xam ne observatoire national sur le littoral. Mhm. bu ñu amee observatoire boobu am loi sur le littoral am nañ déjà la stratégie nationale de gestion du littoral dinañ am tous les instruments yoo xam ne moo ñuy mën a permettre ñu gérer le littoral ni mu waree. parce que observatoire bi. Mhm. dina xool problème yi nekk ci littoral bi yëpp. dinañ mën a am toutes les données man ko partager te dina mën a nekk uti d'aide à la décision dina tax les politiques que nous bala ñuy jël décision ñu xam ne décision bi ñuy jël fii lañ koy teg ak fii ak fii te dina am benn système d'alerte précoce parce que ministère de l'environnement moom ak ANACIM ñoo ci liggéey mhm. parce que ANACIM moo yor les données mhm. données climatiques yi ñoom ñoo koy générer donc ñu ngi ciy liggéey te observatoire bi yaakaar nañ ne Euh, dans les prochains mois dinañ ko dëggal. bu lépp yembee daal. yaakaar nañ ni lépp bu yembee mën naa dal. par rapport à la gestion du littoral à l'avancée de la mer ak yu mel noonu. yaakaar nañ ko incha allah. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm amiin amiin amiin. Euh, monsieur le ministre tombé moo waral ay gaaf gis nañ ni que ci sa ay. Mhm. ci la ñu génnee parc de Niokolo-Koba. Mhm. ci liste des patrimoines historiques en péril. Mhm. nga xam ni 2007 ba léegi. ñu ngi woon ci liste boobu. Mhm. waaye léegi génn nañ ci. Mhm. loolu yan effort la laaj yu état bi def ak itam njeexital bi lan avantage la ñu mën a jural ñun askan wi. waaw euh, convention sur le patrimoine mondial convention la boo xam ne 1972 lañ ko créé. Mhm. Sénégal nag adhéré ci. et biñ ko defee ba léegi mën naa ne Sénégal am nañ déjà am nañ sax euh, sept sites mais dafa am lu ñuy wax patrimoine mondial culturel. ak patrimoine mondial naturel Sénégal li ëpp ci site nag patrimoine mondial culturel la parce que loolu moo moo moo ëpp sax ci situ patrimoine mondial effectivement boo xoolee dañ naan la l'île de Gorée est site du patrimoine mondial la ville de Saint-Louis est site du patrimoine mondial il y a euh, les sites euh, mégalithiques de la Sénégambie il y a le delta du Saloum nga xam ne parc la mais du patrimoine naturel mmh. patrimoine culturel la le pays Bassari dans la région de Kédougou patrimoine culturel la mais patrimoine naturel ñaar lañ ci am mooy le parc national du Djoudj